ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biti la rek. bismillahi wa ala millati rasulu man hajil wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi kàddu yi moom dama ko yàgg naa ko waaye xañ na tey la jotoon ngir ma génne ko jëmale ko ci soxna Aïssatou Diallo moom nga xam soxna Cheikh Béthio mi fi bàyyeekoo la am rek euh, ndénkaan yu ma koy jox ba noppi bu dinaa wax itam li ko waral ci sama diggante kilifaam ak Serigne Saliou et yow soxna Aida li ma lay conseillé mooy nga muñ te xam ni inna allaha maa sabirin te bul jàpp ni itam am nga benn noon ci njabootu Cheikh Béthio bul jàpp loolu waaw te képp koo xam ni dafa soppoon Cheikh Béthio sa soppe la rawante nag tàmbalee ci njabootam ñu ngi ko bokkal ak ñi di say doom di ay dooma ñoom ñëpp say soppe lañu e li la kilifa gi digal Sëriñ Muntaxa su peut ki ma ne laa tafan luy say an bi xëyri isnin bu leen def dara ci lu dul ndigal boo ko jëfee ni mu la ko waxee rek jarul ngay tiit jarul ngay jàq jarul ngay angoissé mbaa ngay stressé ndax inal xasanaati yu seem na sayaati waaw te sëñ bi moom naka jekk bi mu toggugul fii ku nekk ci yërmande lu baax nga ko xamal hmm. rawante naa nag bi mu fi toogee nekkal fi ku tëdd ki ci boppu almuridiya ma bëgg nga dalal sa xel te xam ne destin moom humuril insaan yaamuru bi tadrij boo déggee yenn wax kuy wax ci rajo bi ak ku mën a doon bu xawee ñagas ci yow itam bu ko jàppee bu ko jàppee wax ju ñagas bu ko jàppee ka ko wax ñoom ñëpp dañ laa yéene jàmm rek ndax moom lañ yéene woon sa kilifa ñoom ñëpp ndax xam nañ sa kilifa digganteem ak Serigne Saliou ak ni mu amee ngërëmul Serigne Saliou ba dee yow ci sa jëmmi bopp nag man maa ngi fàttaliku bi nga xamante ne bii dem naa ziar ji sëñ bi ba ma defalee ñaar fukki xar yaak benn ndekki booba Cheikh Béthio fa la waaye maa ngi fàttaliku di ko sëñ bi wooyee ni ko ni ñëw waxtaanal ma ba mu ñëwee waxtaan wa su mbir daa dugg ca biir waaw fa mu tàmbaleeg fa ngeen ak ba fa ngeen egg waaw loolu lépp lim ma wax ci yow góoma ni wax na ko ci keneen ba tax na fi ñu toll boo mu ñëwee li nga xamante ne bii nag mooy poñetum àdduna di bien ak matériel ak yu demee noonu mbaa dara jaag yooyu bu ko nangoo xëccoo kenn waaw ak njabootam lu ñu ci bëgg lu ci féetoon ci lu ci ak njabootam bëgg bàyyee leen ko tedd se ku tedd ki waaw ndax ku tedd ki ay xéwalam du jeex waaw li am solo mooy am sa ngërëmul kilifa boo xasee am sa ngërëmul kilifa rek moom bu ko defee nag euh, yeneen yi ci des yépp nag waaw te bul nangoo kenn di la waxloo te dara ci ay réseaux sociaux wala ay demee noonu sëñ bi moom yërmande kese la te boo jëfee li ma la wax rek yërmande ji daf lay topp da nga koy dal gis ci bu gaaw ñi nga xam ne itam nag euh, ñooy njabootu cheikh bi itam ak ku mu mën a doon muy góor muy jigéen ñoom ñëpp la sopp euh, bu ñu sañoon doo am benn difficulté bu ñu képp kenn ku képp ku bokk ci euh, njabootu cheikh Béthio rek doo am ay difficulté waaw ndax loolu moom ma nga jóge ci Serigne Saliou mu baaxee ko cheikh Béthio moo tax loolu laa ni loon kàddu yi mënuma la koo ñàkk bañ a wax indirectement ba noppi di ko dégtal Sénégal yëpp nag ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ku muñ muñ inna ma am sabirin waaw da ngay jigéen nag moo tax ma ñeewante la moo tax ma lay ma lay soutenir lii comme ni ma daan soutenir Cheikh Béthio ba mu nekkee ci natt beeg ak yëpp rek waaw ku ne gis na ni ma daan doxalee ak moom ngi nag tey ballu àqu ñëpp tey waaw tey ñaan ñëpp itam yërmande ji rek waaw gën a yokk ñuy wax ci rajo yeeg ñëpp daal di jëmale ci yow ñu xam ne rek ku tedd ki moom moo doon yërmande yonent bi te ba ma ko doonee ba noppi nag la mu ni barakatul maahi ala yan tasharat yi tam waaw ba mu ko waxee da ko jël tasaare ko ci ñëppam rawante naa jigéen ñi soxna yi waaw lu ñu mën a gën a yaatal yërmande ji rek waaw bu ko defee rek day gën a day tax xel yi gën a dal dal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu